bokk na ci muñ gi am solo bakkanub doomi aadama day bëgg ku ko sant bëgg ku koy tagg bëgg kilifteef nekk ci kanam bindee fii nekk ci gannaawam jaam bi nag téye bakkanam bañ a bëgg ak cant bañ a bëgg aw tàgg nekk ci gannaaw gënal ko nekk ci kanam loolu des koy muñ di ca góorgóorlu te muñ gu réy réy la ominhu bokk na ca xab sunaa sunug tëj mbaa sunug téye laxaa ñeel bakkan ya xalal xumóoli ca géem ga maxat tawaaduhi ànd ak toroxlu ga kazaaka naka noone ak dillatu nangu torox ga itaara aaxiratina ngir gënal sunu alaaxira al mujallati ka di kuñ màggal xalal xaqirati ci aji xeebu ji muy àdduna walit taqarru bi ak ngir jegeñlu di rabbinaa jëm ci sunu boroom alqaadi yi kay aji faj jamihan arabi mboolem aajo doonal xalaayiq yi ci lu dul mbindeef yi walit taxaquqi ak ngir dëggu ga bidil xobodiyati ci gileeg njaam wasfan mbir mu ñu aw melo yartaqi woo dana yéege bi ci moom li ala miknatin jëm ci gën jaa kawee daraja wa tarki tanaazoin ak bàyyi xëccoonte mahal xazimil mulki ànd ak yàlla mi aji màgg ngóor bokk na ci xeeti muñ ñi nga xam ne ab jaam war na ci góorgóorlu mooy bakkanam day day bëgg a siiw waaye nag day muñ di ko jéem a téye ci ak làqu ak ñàkk siiw akuk wayaflu ba tey bakkan day bañ toroxte waaye na koy wayafal bu mu ko taamul la muy taamu ci lu muy lekk mbaa lu muy sol mbaa fu muy tëdd la ca bakkan bay taamu bu mu ko ci fekk na ko xaw a def ne mbaam rek nga xam ne la muy sol ak la muy lekk ak fa muy fatu mu mel rek baax na ci moom na def noonu ndax gën a fonk gën a fullaal alaaxira mee nga xam ne moo am solo wan gannaaw àdduna mi nga xam ne moo xeebu lool day def noonu it te jublu ca gën a jegeñ yàlla mi nga xam ne mooy boroomam te moo mën a faj aajo bañ a soxla mbindeef yi geesu ko ndax xëy na su defee noonu àgg ci woyofal dundinu àddunaam noonu mën naa am mbindeef yi moom lu ñu sawar ci jaxasoog moom ca noona waaye nag moom na gënal jegeñ boroomam na ko ëppal solo ci jegeñ lu bokkut ak boroomam ci melo woowee ca lay wane ne man day jëwuma xëccoog saa boroom dara ci nguuram gi moom rekk mooy buur man nag jàmbu xeeboo xeebu laa te bu melee noonu nag dal nay doon dëgg-dëggi jaamub boroomam te ci loolu la ko yàlla yëkkatee ba ca daraja ja gën a kawe ominhu bokk na ca muñ nga ixfaa uka sëg nëbbu saayal birri jëfuk mbaax bokk na ci muñ nga fexe ba boo defee lu baax di ko nëbbu ni ngay nëbbe say ñaawteef rek nga di nëbbe say baax baax te yàlla tax oman xunaa ak sunu tere an nu foos sa bakkan ya ku la dëxërin ci bépp jamono min faakihaatin ci ay payteef mooy ci ay fruit wa tamat toin akuk bànneexu bihaa ca ñoom walaw xalaalan ak doonte day aji lew xindanaa fi nun fanta bi na nga yeewu bokk na ci muñ gi ëpp solo ngay aaye sa bakkan la mu bëgg ci xeeti bànneexi àdduna ndax bu ñu nee xeeti furu yi maanaam xeeti doom yu neex yi lekk ko baax na yokki ko sa dund ndax nga gën a wér gën a am jàmm loolu saye boo aaye ko sa bakkan ndegam man nga ko ndax bakkan bi bu tàmmee neex-neexi àdduna yooyu di cëpp day bëgg a fooy te it du bëgg a dellu ci alaaxira dellu ci boroomam kon xeeti yu neex yooyu araamut ndegam am nga ko ci anam gu dagan waaye bu dee ku ko mën a bàyyi nag aaye ko bakkanam la muy lew-lew loolaay gën ca moom loolu sax buñ koy wax mooy bu dee aw ci yoon wi te àggagul ci ngërëm àgg ci boromam bu xasee àgg ci boromam ba gisatul lu ma yàlla moom dara du ko yàqalati mën nay jëfandikoo xeeti bànneex yépp te da koy dolli ak yéeg waaye du ko wàññi dara wa minhu bokk na ca ixfaawul fata nëbbuk cam si almaarofa njekk wa sadaqaati ak i sarax laata sal bul deñ xanifan di aji sell ak njulit fa axbaru xibaar nañu bi ànn ixfaa al wajahi ci naka nëbb aw metit wa sadaqaati ak sarax ya wal balaaya ak balaaya intaqa ndem dañoo tàbbi kafaaqati niki ak ñàkk min anfasi zaxaa'iri bokk na ci gën jaa selli ndaxañ téef ya rajaw taxaa mbir moom yaakaar nga leen xindal illaahi fa buur ba alqaahiri bi aji not bokk na ci muñ gi am solo lool looy def ci lu baax rek ci xeeti saraxeeg joxe sa alal nga fexe ba nëbb ko kenn bañ koo gis ku may yàlla mi nga xam ne dara mënu koo làqu ndax nee nañu nëbbu alal jooy joxe ngir yàlla ni ki saraxus coobarewu ak yàlla teg la balaa wala metit nga nëbbu ko bu mel ne yàlla tegu la balaa tegu la metit yooyu nee nañu lu nit di yaakaar ëllëg tuyaaba rek yooyu ko ëpp tuyaaba ëllëg foofee fa yàlla wa minhu bokk na ca sawnul faqri ñoŋal ñàkk ga bil ixfaay ci nëbb ga lakinnahu waaye moom nag min asxabil ashiyaa yi bokk na ci gën jaa jafe yëf yi bokk na ci muñ gi am solo lool yàlla teg la ñàkk nga muñ ñàkk ga ba ko la gis defe ne yaa ëpp la ñëpp loolu nag nee na lu jafe-jafe la ñu bare bari bu ñàkkee lool lool daldi salit wa afdalul anwaahi gën ji xeet ya fil munaafasati ci ëppalante sabrun moo di muñ xalal ilaahi ci buur ba bil mujaalasati ci ak toogaale lëxoo ñeel ko wa isxaawun akuk déglu ilaahi jëm ci moom wa xukoofu xàmmin ak saxagu yitte alayhi ci moom xinda am nin fa ak wóolu wa ma xoofin akuk ragal nee na nag li gën ci xeeti muñ yi ci gën cee jafe mel na ne mooy muñ ci toogaaleeg yàlla muñ ci toogaale yàlla nag mooy jëmam gisoo ko waaye foo tollu bàyyi ko xel ne moom mi ngi lay gis sa yitte jëpp nga jëmale ko ci moom boo tiitee ak boo tiitut boo amee ak boo ñàkkee ak lu mën di xew daal moom foo tollu yaa ngi koy bàyyi xel ci ne yaa ngi toog ak moom sa yitte jëpp ci moom rek la jëm wa sabru ak muñ nga lil xub bi ngir sopp la xooñeel yàlla walil xayaa ak ngir kersa min hu ci moom bokk na ci xeeti muñ yi ëpp solo te ab jaam war a jéem ñu bañ ko caa ëppale muy muñ muñ koo xam ne sopp yàlla doo nga tax ak rus ko muñ ngir sopp yàlla ak muñ ngir rus ko lu rëy rëy la waxu bun ak sopp li xadaa yi ñeen àtteem ba xiyan na nga wattu waxoo moom nag as sukkoonu mooy dal ga xay suma jaraa fu mu fi dawe alxadru dogal ba ilahi jëm ci moom xadd kaana moo xam am na binaf in ci ak jariñ aw dararin wala lor maxa shuhudi ànd ak seereem nga minal inhaami muy bokk ci xéewle ma shuhudi ànd aku seereem machiatallahi coobare yàlla taqaxu muy dal bii ak moom maxal xikmati ànd ak xikma ba fiihaa ca moom wakasaaliki nii xasdun ak jublu la ñeel ko bil ibtilaay ci nattu ga faxusan na nga jàpp muñ ba àgg ci sopp la yàlla dogal moom bokk na ci gën a jafe ndax muñ rekk ba àgg ci bu yàlla dogalee mu neex la yombut waaye nag sopp dogal ba ci boppam moom sopp la yàlla dogal lu jafe-jafe la moom nag nee na mooy saa yu yàlla dogalee rek moo xam ci zahir day njariñ mbaa muy lor daldi seere ci xolam ne coobare yàlla kat moo tax lii am te it yàlla foxantuwut du jaar fu dara nekkut lii mu dogal ñàkkul xikma bu tax mu dogal ko te it dañu cee jublu natt rekk ndax yàlla fu mu toll di nattu ay jaamam ba xam dëggu nañu wala dëgguwuñu mu boole ca seere ne loolee yàlla dogal nag ak lu mën di am rek moom xéewal la gum ko xéewale bu dee ci mooma bu dee keneen it mbaa ñeneen it xéewal rek gu jëm ca ñoom noonu ku ko def kon àgg na ci sopp dogal ba yëwul rek ci gërëm dogal ba summa la man na topp na nga xam ne ana li sabri naka ñeel na muñ ga aljamili gay aji rafet fawaidan ay njariñ adi datan yu aji limu xindal jalili fa aji màgg ja muñ gu rafet nag moom te mooy muñ goo xam ne kooku jàmbatul ku may yàlla ne bari na ay njariñ lool lool mu waxal la yenn yi nga dégg min ha bokk na ca an najaatu mucc wa qadaa'ul xaaji ak fajug aajo xunaa fii ci àdduna waxannaa ak foofale ci alaxira doonal istidraaj ci ludul ak jay wanaylu miknatin ak amuk daraja ngalan ci ëllëg wa ngalabatun akuk not xal xidaa ca noon ya fal tas biroo na ngeen muñ yaa talabatan yéen way sàkku muñ gu rafet dana tax yàlla musal la faj sa aajo fii ci àdduna ak alaxira nga xam ne faj gam faj sa aajo fii ak fële jay la taxut te dëgg-dëgg daa xam ne muñ gu rafet gi tax na nga yelloo rek pajuk aajo mu daal lay musal faj sa aajo muñ gu rafet day tax yàlla may la daraja ju rëy rëy bu ëllëgee muñ gu rafet day tax nga gañe say noon taqaddumun akuk jiitu xalal waraa ci mbindeef yi al imaamatu akuk jiite muñ gu rafet day tax nga jiitu mbindeef yi nga xam ne ci baatin moom yaa leen jiitu donte sax ci saahir yaa nga ca gannaaw muñ gu rafet mën naa tax nga jiitu ci biir ak ci bitti xam donte feeñoo it jiitu nga waaye nag ba tey muñ gu rafet mën naa tax nga jiitu jiite gu fis ñu topp ci sa gannaaw mu lu yàlla def ngir sa muñ gu rafet kon jëmm yàlla mën na koo jiital ngir muñam gu rafet mu jiitu jaam ñi topp ko mën naa am nag jaam ñi ko topp sax ëppale ko daraja waaye jiite ga moom yàllaa ko ko defal mën naa mit nag mu jiitu jiitu goo xam ne raw na ko mbindeef yi muy goog baatin goo xam ne doonte gisuñu ko xamuñu ko it fekk jiitu googu moom am na ca baatin yooyu yëpp nag muñ gu rafet dana koy maye tanaa u rabbina ak taguk sunu boroom maxal karaamati ànd ak karaama muñ dana tax nga am taggu yàlla am teraangal yàlla muñ gu rafet mën naa tax sax mu may la ay karaama ay mbir yu xotti baax yu yéeme yéeme min ha bokk na ca mahabbatul ilaahi soppuk buur bi wa tawaabu ak yool ba bila nihaayatin ci ludul ab yamukaay li kulli di tisaabin ñeel képp ki boroomuk sàkku tuyaaba muñ ko rafet day tax yàlla sopp la fay la tuyaaba joo xam ne appuut mëni su ko nattaka wàññi min xaa bokk na ca bushaaratun mbég salaatun ak njëgal raxmatun ak yërmaande wal fawsu ak texe fi dunyaa ci àdduna wa yawmil xurmati ak ca bisub njàqare ba muñ gu rafet day tax yàlla may la njëggal ak yërmande dolli la ca ak jub ndax bis borom ne wa bashiri sabirin dëggalal way muñ ña xame nañ ca ne kon muñ day tax nga am mbégte bam ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wane ne kon muñ day tax nga am njëgal ak yërmande la mu daaneele wa ulaika humul muhtadoona wane ne ne ñooy muñ muñ gu rafet ñoo di ña jub te ku yàlla may njëgal may la yërmande seede ne yaay ko jub kon da nga am texeg àdduna ak texeg alaxira wa fil xadis nekk na ci hadis man yurid ku namm rabul wara borom bindeef yi xayran aw yiw bi ci moom ibbu talaahu mu nattu ko faltanta bi na nga yeewu li koy yekkoon a ngir mu nekk mukk siran di aji baril la ñeel ko ujjooran ay yool bi daalikal balaay ci boobee balaa faltakun na nga nekk sabooran di ab muñaakoon hadis ba nee na ku yàlla nar ci moom aw yiw faaw rek mu teg ko nattu du ko bàyyi bañ koo nattu te jubluwu ca lu may baril rek ay tuyaabaam ca nattu yooyee mu ko teg kon nag kon fa xeel ba bu la yàlla tegee nattu nga muñ te xam ne kon dalaa bëggal lu baax rek wa fii nekk na ci addis maa yusiibu du jot mu'minan aji gëm nasabun coono wala jawan du caageenu njàqare wala adan du caageenu lor wala wasabun du caageenu jàngoro walaw bi xewkatin ak doonte ci ak dég la tuximmu ko dana jàqal xalbaxoo xolam illaa waxatta ndare bu sippee allahu yàlla xan walis ko dambaxoo bàkkaaram ba wa fussira firéef na an nasabu baatub an nasabu bil iriyaayi ci ak tële wa taxabin akub coono xinda dawit zakaa yi fa waroom ñaw ga wal wasabu al wasabu jooju al maradu mooy tawat dal xawlu bi le wax al mufiidu bi aji jariñ axrajahu génne ne ko acheikhaani ñaari sëriñ ña xan abi saxiit njële ko ci abi saxiit wa hazaani ñi le ñaarit xadd saaxabaa àndoonte nañu xan abi hurayrat njële ci abi hurayra ridar rahmaani ngërëmal aj yërëme ji anhum yàlla nekk ci ñoom ñëpp hadis ba nee na ab jullit lu ko dal rek moo xam coono la moo xam njàqare la moo xam tawat la moo xam lor la lu mu tuut tuuti donte sax ak dégg la gu ko jam ba mu yëg metti doo rek faaw yàlla sippil ko ca ay bakkaaram ñaari baat ñi nag di an nasabu ak al wasabu dafa ñëw ci addis ba te seen prix yombut ba tax mu firee ne an nasabu daañu ko wax coono di ko wax ak tële al wasabu ñu koy firee jàngoro muy tawat addis boobu nee na xadiisun muttafaqun alayhi la bi ne addis muttafaq alayhi mooy boo xam ne al buxaari ak al muslim tase nañu ca ne ñoom ñaar tase nañu ci benn net li ba bàyyikoo ca abu saïd benn net li ba bàyyikoo ca abu hurayra buxaari ak muslim nag hadis bu ñu bokk tase moom la ñu tuddee muttafaqun alayhi te moo gën a wér ci hadis yi waaye bëtal yi dana nattu ar rajula waaja rabbu hoo boroomam xalaa xasabi diini yi ci kam diineem ja xalaa maa ci kaw li nga xam ne nuqi la toxaleef na ko fa in yëkkun ndeem dana nekk salban di aji dëgër yu shaddat kon def na taral albalaa balaa ba man man na it yu shaddit kon mu taral moom yàlla albalaa balaa ba wan xaksu safaan ba bin xaksi nekk na ci safaan ba xalaa maa ci kaw li nga xam ne yu jutalaa def na ko niir kenn ku ne na diineem toll rek bu ko yàlla nattu noonu la nattu bay toll bu dee ku dëgër pas-pas ak diine nattu ba ko yàllay teg day doon bu diis a diis bu dee koo xam ne nag day ko yëf diine pas-pasam demewul noonu bu ko yàlla nattu itam nattu ba du ko tax a diis na pas-pasam ak diineem toll rek la nattu bay toll laa yatruku du bàyyi albalaa u balaa xabdan ab jaam zamanan ci genn jamono xataa yaxutta ba te mu sippee xan walis ko kullama lépp loo xam ne janaa tooñoon na ko su yàlla tegee jaam bi balaa daal na rafet njort xam ne yàlla da ko ci fóot rek balaa bàyyi daa seet wecc ci ay bàkkaar ba lam tooñoon lépp wàcc ko wa kullu man képp koo xam ne xawaa làq na xaafiyatan jàmm xunaa fii fa in raa ndeem gis na ahlal balaay ñuñ balaa wal jawaa ak njàqare yowmal qiyaamati ca bis penc ba ya waddu dana siiw dana sopp añ yakkoona ci bu nekkoon xurida dee fi sisoof dee fi siso jismuhu yaramam wa xunaa fii fi kulli hiinin ci bépp waxtu li ajlimaa ngir li nga xam ne yashhaduhu dana ko seere mina tawaabi ci ab yool li dil balaayaa ñeel boroomi balaa xaaxunaa fii bilaa xisaabin ci lul xisaab dena ko yàlla mayoon jàmm ci àdduna bu demee ci bis penc nag ba gis ña amoon balaa lañ fay am ci tuyaaba day ngéejoo di xemem naa cey ak neexoon ba mu nekkee àdduna yàlla doon ma teg ay tiis yu baree bari niki di siso saa yaram ñu koy xotti noonu lay ñëwee ka amoon balaa bay mébét ak ngéeju loolu wallahu te yàlla zu taxaa xudin boromuk ndemiku la bil balaa yi ci balaa likulli xabdin ñeel bépp jaam muminin buy aji gëm mujaahidin kuy aji jihaad xonaa fii ci àdduna kamal waalidu naka nga xamee ne waajur wa yakkoonu dana nekk za taxaa xudil wildaani di boromuk nemmiku doom ya fil azmaani ci jamono ya yàlla li muy teg ab jaamam dëgg-dëgg boo ko dee seetlu da nga xam ne da ko caa bëgg a defar rekk ndax waajur dana di aaye doomam lekk sàngam mbaa ñam sàngam mbaa mu ko yóbbu fañ ko yare di ko fay yar-yar bu metti mbaa sax docteur bi xotti yaramu ki wéradi te ñoo ñëpp jubluñ ca soxor mbaa dara defar rek tax mu ne yàlla it noonu lay def nag jaam ba ko gëm fu mu toll di ko nattu di ko teg balaa te jubluwu ca lu may jaam ba am pajuk aajo rek tey ak ëllëg wa fii nekk na ci addis aydan ba tey in ahabba ndem sopp na allahu yàlla xubaydahoo as njaamam ibtalaahu mu natt ko bi nukk bati ci aw tiis fa xay suma yastabir foofu xam dafa muñ ijj tabaahu mu tànn ko wa xay suma tadaa fu fi gërëme bi xaa ca moom istafaahu mu taamu ko addis ba nee na yàlla bu soppee ab jaamam da koy teg aw tiis su jaam ba muñee yàlla tànn ko def ko muy ko mu tànn su yemul nag ci muñ xanaa gërëm loolee ko yàlla teg kon yàlla da koy taamu day weesu tànn ko waaye da koy taamu mu nekk jaamu bu yàlla bu yàlla taamu ahlul balaa ñooñ balaa laysa lahum dédd ñeel leen miisaanun balaas wa laysa yunsharu te deful tàllal lahum ñeel leen diwaanun diwaan kayitu jëf ba li fi nekk innahum naka ñoom yu sabbu def na sotti ajruhum seenu pay lahum ñeel leen sàbban ak sotti bilaa baxsin ci dul gëstu dara xadan ci ëllëg bushraa yéem naa mbégte lahum ñeel leen ñu yàlla tegoon balaa daal bu ëllëgee moom kenn teg balaas di peese seeni jëf mbaa di seet seen kayiti jëf mbaa dara déedéet dañ leen di sottil seeni pay ak seeni tuyaaba sotti gu bare bare goo xam ne day weesu takk ak wàññi ak peese te kenn du seet dara ci seeni mbir naa lee tegu na ci yoon mbaa teguwul ci yoon dañuy jekk-jekk rek sotti leen seeni tuyaaba sotti gu demee noonu te su boobaa daañu am mbég mu rëy rëy mu doya yéem fa xaytuma sarraa u foofi xam ne mbég xaana teew na fashkuran na nga sant wa xaytuma darraa u foofi xam ne lor xaana teew na fasbiran na nga muñ kon nag nee na yaar ñooy awante ab jaam ci àdduna lu neex ak lu naqari am ak ñàkk kon saa yoo amee am ak wér ak jàmm farlu ci sant bu baax a baax su yàlla indee ñàkk ak tiis ak jafeñ-jafeñ nga muñ a muñ muñ gu rafet inna lazina naka ña nga xam ne salafoo jiitu woon nañu kaanoo nekkoon nañu abadan faw mustawxishiina di way njaay àllu maanaam di way wéet inna àndeem sori na anhum walis ñoom naka dun aw tiis kaanoo nekkoon nañu ida xaraja ndéem génn na xaamun am at an huma walis ñoom walam yu saaboo te jotee fu leen fii ci moom maanaam teguñu leen musiba daal fii ci at moomee fiimaa ci la nga xam ne lahumoo ñeel na leen min maalihim ci seen alal aw najlihim wala seen doom aw nafsihim wala seen bakkan saa ahumoo mu naqari leen jiddan lool li husni zannihim ngir rafetuk seen jort bi rabbihim ci seen boroom inib talaahum ndem nattoo na leen bi naka di ca tiis wa ulaaikal xawmu ñooñee nit xumoo ñoom ahlul rashadi ñoo di ñoñ jub ga gaa yu baax ya nga xam ne ñoo jiitu woon àggoon nañ ci bu leen yàlla tegul wenn tiis dañuy jaaxle duñu xajooti seen bopp bu ñu mësa am am at moo xam ne rek yàlla tegu leen ca menn musiba du ci seen bopp du ci seen doom du ci seen alal lool da leen di tiis lool naqari leen lool ndax bu leen yàlla natoo la ñuy gën a rafet njort ci ne yàlla namm na ci ñoom aw yiw bu leen yàlla natoo la ñuy gën a rafet njort ci yàlla xam ne aw yiw rek la namm ci ñoom bu leen nattuwut nag ñu daldi ñaaw njortu jàpp na rek yàlla bu di seen mbir daa mérta baax mu ne gaa yu mel noonu nag ca dëgg-dëgg ñooy gaa yu baax ya ñooñu yàlla jubal te ñuy jubale fa lay sa yaxloo du wéet mu'minun aji gëm bila nisaahin ci lu dul xëccoo mooy ci lu amul benn werante fii kulli arbaax yu na ci bépp ñeen fukk yow man ci ay bis añ yu raaxa ci bu dee fi ko tiitale bi raw xatin ci am tiit shadidat muy aji tar shadidatin aw an yu saaba wala dee fi ko jot bi nu ko batin ci aw tiis tukasiroo dana baril ak sawaaba yool ba lëxoo ñeel ko ku gëm yàlla dëgg-dëgg moom du am mukk ñeen fukki guddi yoo xam ne yàlla tegu ko ca am tiit mu tiis a tiis wala musiba mu rëy rëy te jubluwu ca lu may rekk baril ay tuyaabaam wa ajj wa dul zuxri gën jaa rafeti ndaxañ téef te mooy dencub tuyaaba la dal raxmaani fa aj yërëme ji xul waxal ne xatrataani mooy ñaari toq su ma jur xataani topp ñaari góox xatratu dam xil xay ni toquk rongoñu bët fii sawaadi laylin ci lëndëmu guddi bi sajdat ci ab sujjóot li sijtihaadi ñeel boromuk farlu wattaani ñaareel bi xatratu dimaa yi mooy toquk deret ya fil jihaadi ci jihaad ja ixla ak kilmatin ngir kawel ab baat li baari il xibaar yi ñeel aji bind jaam ñi li ëpp solo ci denc tuyaaba yi nga xam ne moom la ab jaam di yaakaar bu ëllëgee mooy ñaari toq yi muy bëgg a wax ak ñaari góox yi muy bëgg a wax mu njëkki ñaari toq yi toq bu njëkk bi mooy jaamu yàlla bi di jaamu yàlla ci guddi gi sëggat yu sujjóot ragal yàlla ba ay bëtam sotti ay rongoñ rongoñ nga toq loolee day rëy na rëyaay boo xam ne tuyaaba jam ci am bu ëllëgee xameesul nu mu toll loolu mooy benn toq bi ba ca des nag mooy dem ca jihaad ja bëgg a yëkkati baatu bi yàlla rek tax ñu tuur deretam deret joojee tuuru ca yëkkati baatub yàlla boobee day lu ñu cay séentu ci tuyaaba rek lu ko ëpp nekk na ca